développement idée à chaque fois da ngay ne femmes yi ñooy femme c'est-à-dire dañuy indexé alors que avortement médicalisé bi mais état di Sénégal moo dem ratifier convention bi bu mu koy ratifier foog naa tàgguwul femmes yi tàgguwul organisation tàgguwul société hmm, civile. moo dem ratifier bu mu ratifie ah ku ratifier kay dem ne yow yaa dem signé ñëw assemblée nationale ratifier ko kon lan moo des. mais jëfee ko mais en pren en prenant en compte les mesures qu'il faut mais nekkul ne femmes yi ñoo jog dañu dañuy bëgg avortement médicalisé si kii ñu ñu harmoniser ñu harmoniser bu ñuy harmoniser parce que y a quelque chose qui a été signé et ratifié loolu lañ bëgg mu harmoniser wu ak euh, li fi nekk parce que condition bi fi nekk mooy euh, en cas de kii menace à la vie de la mère ou du du fœtus foofu la ñu autorisé avortement médicalisé mais dans les autres la loi nationale autorisé wu ko mais nag li nga xamante ne moom la état dem signé au niveau international loolu moo dugal inceste ak viol léegi nag xanaa kay ku signé mbir mais su ma demee sama dëkk dinaa ko def naa boo ñëwee nga war ko mën a def te kay ma wax la benn affaire. viole bi ak euh, kii avortement yi ñuy avortement médicalisé bii ñuy laaj ñun xam nañ lu tax sax am na importance mais dama la ne bu ñu fekkee jël nañ leen mesures qu'il faut parce que nekkul ne nit ki day ñëw dañ ma dañ ma violer rek ñu avorté ko non dina am ay garde-fou mais aussi boo demee ci prison yi Euh, gis avortement clandestin ñi ngi fa tëj ndax avortement clandestin kenn xamul nu mu toll pourtant ñi nga xam ne am nañ xaalis ñu ngi def avortement médicalisé donc ça veut dire que kon avortement. ñu ngi koy def mais ñu ngi koy def en cachette. ah voilà en léegi nag loolu loolu. kii la euh, ça veut dire que ki nga xamante ne moo am xaalis moom risqué wul la prison pour avortement clandestin ki nga xamante ne moo am mu ngi def avortement en cachette avec tous les moyens qu'il balaa kay nañu kii nañu nañu ñoom ñoo ko signé euh, bitim réew nañ ko ñëw rek nañ ko ñëw ci ñëpp ñu ëpp ci ñi nga wax noonu infanticide lañ leen tëjee nañ non avortement am pagaille loolu su ma la koy wax man li ma ciy wax def ma leer parce que non yéen a yëngu yéen koy xam ngeen bu baax chaque dañuy dem ci prison yi dem seeti ñi nga xamante ne ñoom lañ fa téye suñu naataango jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi foofu xool dossier yi fu ñu toll et tout bu ñu waree ñu jëlan leen avocat ñu xool matuwaay bi ñu ciy jël kon ñun aussi li ñuy gis ci prison yi donc wane nañ ne Sénégal ñaari façon victime ñaari façon ñoo fi am ñi nga xamante ne amuñu mooy ñooy victime ñu leen di tëj pour avortement la ko ñee di def kon kay clandestin mooy koo xamante ni jàppuñu la parce que yaa ngi koy def di làqatu peut-être bu ñu la jàppoon waaw jàppuñu leen mais que am nañ moyen ils échappent à la prison ñi nga xamante ne amuñu moyen def ko feeñ donc c'est ñi ñoo nekk ci prison yi. d'accord wala ñu nekk ay ñu nekk di def ay infanticide je pense que loi bi bu ñëwoon dina régler loolu bu ñu bu ñu harmoniser woon loi yi ak convention bi dina réglé ce problème la parce que kon ñëpp a ciy yem te lépp lañ koy teg ci yoon saytu ko ba xam ndax avortement bi war na mën a nekk wala warul mën a nekk parce que c'est pas parce que dañuy voté dañuy harmoniser rek que ku jóge fee rek dañ ma violer ñu avorté wala ku jóge fee dama nekk dañ ma def inceste ñu avorté d'accord